tamit di sant bu baax chef de service yi ci engagement yi nga xamante ni bii jël nañu ko engagement yooyu nag li ci des mooy di ko topp bés bu ne ngir lépp loo xamante ne bii taxawaayu état la ñu mën koo matale ci bés bu am solo boobu nga xamante ne bii moom la ñu jëm comme ni ma ko waxee woon ci sama ubbiteefu waxtaan li ñu tàqale ak bés bi daanaka matatul weer xat-xatu jamono peut-être moo taxoon ba mënuñu woon a woote réunion bi waaye bu fekkoon ne du xat-xatu jamono yi ñu génn daanaka réunion bi dañ ko doon woote daanaka ñaari weer avant bés bi waaye nag euh, alhamdulilah donc yàlla def na xat-xat yooyu weesu na kon nag jamono jii ñu toll nekkatul jamono yu waajal bés bi waaye jamono yu sóobu ci bés bi la mm-hmm. sóobu bi mooy lépp loo xamante ni bi service war na koo taxawee mu xam ne amatul bés boo xamante ne bi war na toog te du si liggéey loolu nag ñu ngi leen si ñaax yéen ñëpp dinañ ko saytu nag saa su ne ngir li nga xamante ne bi mooy suñu taxawaay lépp mat euh, la koy jagal nag toujours man dama koy wax bu ñuy waajal bésu kilifa bu toll nii la koy jagal nag xëj na moom weesu nañu ndax euh, yaakaar naa borom bés bi si boppam mën na wattu bésam waaye nag di sant yàlla bi ñu si yàlla boolee ñu mën cee jëf lu toll si farat te tarafatal ay ni loo xamante ni bii dina tax ba ñu dab mbégteem waaye itam dab ngërëmam donc loolu euh, yaakaar naa ne ku si nekk si ñun ci wàllu état war na war na bàyyi xel loolu xam ne bés bii kat nit li ko wax bokk ko ci defee dina wàccoo ak li état di xaar ci moom waaye tamit dina wàccoo ak li Serigne Mouhamadou Fadal nga xamante ni bii ñu ngi koy dàkkantalee borom mu am mu am donc moom dina dina dina dab maanaam ak ngërëmam te yaakaar naa ne ngërëmam war na mën a jural jullit bu nekk lu raw njortam donc daal loolu laay wax

incha allahu rabbi fii ba le 28 bokk na ci suñu yitte yu gën a mag yoo xamante ne bi saa yu ñu xëyee ci suñu bureau dinañ ko dinañ ko dinañ ci jëf incha allahu rabbi donc di wax ñëpp rek nañu ñaan donc yàlla may nu ñu fekkee te lépp loo xamante ni bi yéene comité d'organisation bi la bu ñu demee ba ca bés ba ba génn ci ñu am satisfaction totale sëñ bi loolu mooy li nga xamante ni bii moo ñu moo ñu taxoon a daje tey